KMTV une chaîne YouTube bu leen di indil ay xibaar yu wër te ci politique économie santé éducation religion sport ak yenen événement Kep ki nga xam ne nga ngi ko Kër Mousse mo xam nga nek ci biir wala ci biti di nga mën sétane seetaan événement wala match nawetaan yu gëna neex ci biir KMTV KMTV njëriñu wa Kër Mousse. salaamaaleykum wa rahmatullah ma ngi nuyu wa landu yépp di nuyu waa commune Kër Moussa. waaw maa ngi tudd Mathioro Diagne nekk présidente GIE ànd liggéey commune Kër Moussa. waa bis bi waa landu woo woon bëggoon ñu ñëw pour jàppale seen jigéen ci ay formation ci lañ ñëwoon ci loolu lañ jógoon tey ñëw pour jàppale leen ci formation defal leen euh, saabu ak euh, savon liquide savon solide muy madaar bi ak eau de javel waaw tey moom ay cuub am na ci am na ay drap ay napp ak ay torchon non non fas yéene ñu ko yemale Kër Moussa ak Landou dañoo fas yéene dem ci commune bi yëpp 36 villages yu commune Kër Moussa yëpp moom lañ fas yéene def incha allah buñ ko yàlla buñ ci yàlla jàppale. waaw fas yéene wu ñu yem ci defar saabu ak madaar bi ak uh, cuub yi parce que ñu ngi fas yéene def tam transformation céréales locales yi di jëm ci ay araw uh, cere bi ak caakiri bi. ak euh, sangal bi waaw ak mboq mi loolu fas yéene nañ ko def fas yéene nañu def tam euh, tomate fraîche bi mooy tamaate njamb bi bi nga xam ne dañ koy def tamaate loxati waaw ak épice épice yitam tam fas yéene nañ ko def incha allah waaw fas yéene nañ itam dugg après ci ay micro jardinage mais dañuy def ndànk-ndànk rek comme que amaguñu doole moo tax ñu ngi def ndànk-ndànk rek di dem à la recherche des fonds pour mën a am tuuti xaalis pour mën a euh, def suñu activité yooyu yëpp. waaw dañu choisir tay ñew landu parce que wa landu biñu woté wootee GIE bi ñu bëri dañu dëkk landu chaque jour dañu joggé landu ñew ba suñu village Keur Moussa village euh, di ñew fofu di def formation ñu gis seen engagement ak seen détermination motax légui bi nga xamé ni ñi nga xamné ñoo nekk landu muy seen ay chamagn ñu mën ci lim baydam ak Idi Sis ak euh, Modou Seck ñom ñu wax ak ñom ñu né dañoo bëgg ñu ñew jappalé seen i ñom itam fekk jot nañoo dajale seen as ñu jox ñu liñu am amakus néew ñun ñu jox ñëw jàppale leen ci formation yi. waa instant bi fi mu nekk nii semaine bii di ñëw incha allah muy le cinq ak le 6 dañu fas yéene may formation waa zone centre de yëpp muy Kër Moussa village euh, Kër Sega Kër Gilaay Saint-Benoît Ndoyen Ndoyen Pël ak euh, kilomètre cinquante mbir jëm suluf dëkk yooyu yëpp ak kër yaa xam dañ leen a bëgg boole may leen benn formation ci siège Pastef su ko defee ñu oo jigéeni Pastef yi nekk foofu yëpp. ak ñi nga xam ne même nekkuñu Pastef te ñu dëkk ci commune bi te développement ñor leen. waaye yeneen dëkk yu bëri ñu ngi participer ci formation bi ñoom ci lañ bokk waa Sën ci lañ bokk ñoom ñu ngi ci biir GIE bi waa Yadda ngi fi waa Ngomeen ñu ngi fa waa Kër Moussa ñu ngi fa waa Kër yaa xam tam ñu ngi fa. pratiquement village yi nga xam ne la majorité des villages ñoom ñëpp ñu ngi bokk ci GIE bi waa ñun neewoon nañ ba ñuy soog a door ubbi nañ suñu bunt pour ñëpp tëjaluñu kenn suñuy bunt képp koo xam ne kii dangaa bokk ci Pastef wala nga bokk ci beneen parti boo mënti bokk même boo bokk ci APR te nga dëkk ci commune Kër Moussa ñun tàllal nañ la suñu loxo parce que lii nii dafa dugg ci programme mu Diomaye président muy autonomisation des femmes mu am ay formation ak ay financement ñu ci accompagner jigéen ñi mais nag ñun comme que président euh, fi mu nekk nii dooleem ñëwagul fii egseegul fii ci commune Kër Moussa ñun ñi nga xam ne ñoo ko fi nekkal nekk fi ay tànkam dañoo fas yéene nekk ay sentinelle président de la république ak son premier ministre le président Ousmane Sonko fas yéene jëkk ak suñu moyen bopp lu ñu am bariwul nag mais ñu ngi góorgóorlu vraiment am suñu ay càmmañ yoo xam ne ñoom itam vraiment ñu ngi ñuy jàppale ci loolu daal ci la ñu jógee di jàppale yenn jigéen ñi su ko defee xam nga ne jigéen ñi suñu amee ci lu ñu jàpp rek su ko defee kon dañuy dañuy mën a demal seen bopp parce que ñëpp xam nañ ne dëkk bi metti na te am na jigéen yu bëri yoo xam ne jàppuñu ci dara. asalaamaaleykum wa rahmatullah maa ngi nuyu ñu fi teew yëpp rawat na ñi nga xam ne ñoo dikk Landu nga xam ne ci la ñu ñëw tey jii démb ba tey ñu ngi fi ñu teral ñu toppatoo bu baax a baax ci seen formation bi ñu kontaan nañ ci ñoom daal ci dalal bi encore bu baax a baax man la Binta Pouy dëkk Tuuli bi ni ma ko gisee mu ngi avancé de ndax bi ñuy tom liir la bu juddu rek ñu koy tette ba mu mu ngi avancé ndànk-ndànk mais nekkul GIE bi nekkul loo xam ne dañuy financé wala di xalaatu madame Mathioro la mu woo ci jigéenu Kër Mousse ñu ànd di ko liggéey mu ngi ñun daal mu ngi avancé ndànk-ndànk sant nag santagum nañ ci yàlla bu baax daal te di ñaan tamit ñu gën a sant yàlla bu baax a baax. waaw ñoo ngi ciy gis suñu bopp bu baax kay ñoo ngi ci parce que mën naa ne ba mu commencé ba léegi maa ngi ci biir waaye ma ñu ngi ciy gis suñu bopp bu baax parce que lépp luñ ci bëgg daal ñu ngi ko ciy def. te lu ñëw rek ñun ñu ko ciy jàng bëgg avancer avancé bu baax luy yokk développement jigéenu Kër musse bi yëpp daal moo ñu tax moo ko moo ko tax a jóg moo ko motivé moo tax tamit mu xiccaale jigéenu Kër musse yëpp kon ñun ñu ci gis suñu bopp bu baax. ii saabu yi macha allah parce que formation bokkul yàgg naa gis ñuy defar saabu fii ci commune bi ak fudul ci commune bi sax mais dafa mel ne ñooñu yëpp teg nañu seen programme ñoo ngi ñëw di daw ci ñun parce que bi spesial masse spéciale bii moom macha allah. alaykum mbolo mi ma ngi dekk Lando ma ngi tuddu khadi jonne bokk ñi defar sabu yi dañuy dem be keur musse di defar ay sabu, di defar ay cuub defar ay ordre de sabu bi nak neexna na neexna neh na sangu neh na wa waaw ku ko ñam mom nga ñew doli formation bi ah ñu ngi ci gis suñu bop ñu ngi ci jang xam-xam ah man sama sañoon ñepp ci dugg ñu jema mënal seen bop ndax ku ci mënal sa bop do jënd do dem taxaw ci bitig bi di jënd bu 300 waaw te man sama sañoon ñepp bok ci liggey bi ñepp mën ci am parce que benn saabu bi ku ko jënd mën nga foos sa yu bari surtout borom njobot yi baxna ci borom njobot yi